Euh, ak benn mbër boo xamante ni ndaanaan la ndaanaan na def na lu nekk ci làmb mais am na foo xam ne toll na fa li ñu njëkk a wax rek mooy ñu gëstu ko gën ko jàppale mais bu buñ ko gisee nii mu taxaw alhamdulilah sant yàlla ak yonent bi. Kaaw Cissé ngi nii raar na ci làmb yi ñii ñëpp booy xool ay naataangoom lañ am na ñoo xam moo leen jiitu sax si làmb Kaaw nuyu naa la ma bàyyi nga nuyoog ñi nga xam ni namoon nañ la gëj la gis. waaw ginnaaw ñu sant yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu axlu lamb di nuyu waa Sénégal nuyu monde bi yëpp di nuyu waa Sénégal ñëpp gaa yëpp ñu ngi leen nuy di bëggee ñëpp waaw. mais Kaaw alors li ñu doon wax da nga tawatoon feebar bi fan nga ci toll actuellement ay neer la neer sciatique la wala nu mu demee waaw nerf sciatique la blessure la woon nerf sciatique maa ngi si traitement yi ba léegi nii mais traitement yi dafa métti nag quoi moo nin la laaj xaalis bu bëree bëri. ñaata yoon ngay traité fois laay def par semaine quoi semaine bi trois fois laa si def trois séances. te damay fay sama xaalis waaw. xaalis bopp. sama xaalis bopp waaw. amul ñu nekk ci làmb ñu lay jàppale wala boog ay om volonté yoo xam ay bonne volonté yoo xam ñu ngi taxaw di la. non instant yi nag du du waa làmb du du volontaire du kenn lépp samay moyenu bopp la. ci làmb nga blessé waa waaw ci làmb laa blessé lool kay ñëpp xam nañ ko bëri naa dix combats am huit victoire deux défaites mais di bopp mënu ma bëre ndax blessure bi. sa combat la woon. maag Ndiasse. waaw. bi nga ñibbee nga feebar walla ci biir combat bi nga blessé. ba may ñëwee stade ci biir stade bi laa blessé quoi mais après ci laa bëree noonu ba ma ñibbee nag affaire yi daaneel ma bu baax a baax doole. waaw fekk egg naa sama gaale nag waaw. mais jot nga bind CNG wala ñu nekk ci làmb ji pour ñu jéem la taxawu ci côté. non CNG jotuma fa bind dara nag deew ma fa ba léegi nii mbaru démb yi tamit ak lutteur en activité yi tamit ba léegi mais maa ngi leen dégg si rajo yi gars yi di wax ak si télé yi mais ñuy wax ñëpp man ba léegi gisuma si kenn. association lutteur en activité. ñu ngi koy wax est-ce que ñëw nañ taxawu la. ñu ngi koy wax mais gisuma leen kenn taxawuma si. di boobu ba léegi man daal damay jéeg saay ñu envoyé ma ay audio whatsapp ne ma lii mbër yi ñoo ko doon wax maa leen ah man de lii yëgu ko maa ngi koy door a dégg nii mbër yi ñuy wax sax man gisuma leen ndax man lu may ñëw làmb léegi bareetul waaw. ndax mënoo am sa yaram du jagari ba pare ngay nekk di ñëw si làmb yi di taxawaalu fu mu ne nii dama dama blessé sama blessure laa ne ku si mun jàpp na te yàlla tax nga ñëw jàpp si. mais euh, situation bi ngay dund métti na wala tane na doon. waaw métti na trop méttaay bi moom foo ko natt weesu na ko mais lépp dañ koy teg si loxo yàlla ko yàlla mooy buur xam nga lu ko neex rek lay teg jàmm doo si mun dara. xam naa di leen mës am jotaay ñu toogaat waxtaan. amul benn problème jaajëf Pape. Pape Maguette waaw maa lay nuyu bu baax baax di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu sama gaay yi suñu coach Omar Dieng démb amoon na Dalifor Dalifor mbooloo waaw di nuyu Falaye di nuyu kaw si sa bu baax. jarul nga leen di nuyu. waaw nuyu <laughs> dama amoon fi combat damay jégalu waa samay supporter bu baax dama ñàkk combat mais di jégaluwaat supporters yi rek di wax ne xam nga nañu gën a booloo doon benn xam nga gën a liggéey parce que làmb la ñu opté te carrière yombul waa boo opté dara dañ ciy boole fu ak fayda di ñaanal gaay yëpp jàmm di féliciter sama booy bi doon bëre fii ni léegi-léegi caatu kayre di ko ñaanal victoire yi gën a yokk macha allah. yéen a seen copain. kaw waaw bu baax gisoo léegi-léegi da romb rek ma ne la Pa Maguette ma la kii nga ñàkk koo jël sax erreur la dafa bokk ci laam boo ko séenee sax da nga ko war a ñëw tàllal micro billaay billaay xam nga lu tax man li may wax sama xol laa ko tibbee man dama ko yéene barke Seydina Mohamed sama combat bi passé rek cinq heures fu mu jotee day ñëw jël si ma mun a ma acca nañ dem contact gi billaay maa booy bi bëre léegi léegi daan caatu kayre xoolal chaque jour nag xoolal moom mooy ñëw xoolal di ñu yee ba pare xoolal ñii dem contact di ñibbisi ak blessuram kon donc damay gën a ñaax autorité Dalifort yëpp Dalifort ñun Dalifort lañ dëkk Dalifort lañ am ku ci mel ni Awa ku ci mel ni Idrissa Diallo ku ci mel ni Ségéré gars yi yëpp ah, nañ si ñëw jàpp. wax ji mooy waa Dalifort dañoo war a xam ne kaaw mi moo fa njëkk a nekk mbër bu mag ci Dalifort. bonne volonté yi nga xam ne ñu nga fa mënuñu poqati seen loxo pour ñu jàppale ko mais dañoo war a wane seen bopp. kon kenn taxawu ko foofu si ay autorité ci doole yi boppam la na lekk te métti na torop ñu amoon ci moom yaakaar yow ku la ne woon Kaw Cissé nag nii bëriwut ak ñoom Sa Thiès ñoom Boy Niang doo ko gëm. ba heure bi nii bu doon bëree mën nañ wax ne mi ngi si côté VIP. waaw ñun d'abord dañuy fàtte suñu bopp ngir moom na ko gars yi jàppale xolam rafet na mënoon noonu def leneen mais defu ko ci làmb la yaakaar ay waajuram yaakaar ci. monsieur le maire Dalifort mu ngi fi ñi nga xam te ne ni tey daan na leen bégal nañ ko jàppale te yàlla rek tax Dalifort ñàkkul ñu ko mën a jàppale mu def leneen ak leneen.